am na solo loolu wax mais léegi damay ñëw ak ci tamit ak làmb parce que kenn du toog ak yow ba jóg te waxtaanut ak yow si làmb yaakaar naa Paul Maurice ni mu bàyyee làmb wax naa ko léegi eh, Paul bi ngay bàyyee lamb yaa ngi woon ci ñaata combat ak banaan nga bàyyee làmb ma la waxee dëgg sax man sa ñaata combat la dama lay wax dëgg rek mais xam nga booy booy dugg si mbir da ngay am li ñuy wax plan de carrière yow da ngay am objectif loo xam da nga ko viser man daam tey ma ne woon tey de def gite naa fii bëgg naa yegge fii suba gana suba fe gana suba ma yegg fele bon yalla bu dogale nak yow sa sa sa sa sa sa acte Ma'nam sa plan de carrière li nga sentu won ci affaire yi egguloo foofu noonu da ngay préparer rek wala nga xam ne fa meuna yegg wa bu de ñun en toute conscience da ngay préférer rek wa bay wa kon yow li maanaam da nga xol ne fi nga bëggoon yegg mëno fa yeggati motax nga arrêter sa carrière quoi. amoon nañ bon na du ma koy du ma làmb sax dañ ci am déception dañ ci parce que li tax am nañ ci déception mooy ni que wanewuñ la un quart ci lu nekk ci ci li nekk si ñun hmm? waaw wuñ ko li tax wanewuñ ko nag mooy d'un encadrement bokk na ci xam nga ndax tey encadrement daal problème encadrement bokk na ci moo tax doomu séréer bu tolni Paul Maurice deuk raison de fatigue en ah, meuna beure nek intellectuel en même temps Paul Maurice warna entamé carrière di am déception di am problème mu encadrement ba mu yak carrière am. c'est-à-dire euh, mbir mom bo ci dougué té sa famille sa famille ñom man sama famille personnellement duñu ay nitu lam sa famille. sama famille ñom njang côté bobu la quoi xamone dara ci côté làmb. donc waaw donc man su féké man dama ñew nek ci lamb ji nek ci man kese dang ci ciy wet quoi donc laata ngay xam laata ngay expérience ci domaine bobu yow da maanaam da koy dund soga xam lan la donc tay suma amé ki par exemple hein mon na ko né ah attention defal ni bul def ni moytul ni moytul ni moytul ni li li li la laaj li lii la laaj ba yegg ba yegg au sommet moytul ni daaral ni fi bul dox fi fi tëbal fi ainsi de suite comprendre nga waaw mais Paul bu bu ma ñëw parce que yow bu ma fàttali ko sa bi mu bi koy door wala bi nga ko commencé di ko di ko ay champion séeréer a ngi foon ku mel ni Yékini mu ngi foon du nekk doomu Sine Saloum maanaam nekk roi des arènes euh, pourquoi ku mel ni kooku maanaam Paul côtoyé wu koon ko ak ñeneen ñoom maa nga de sa defe naa jotoon ngeen wala euh, ñooñu ñu ngi fi woon pourquoi ñooñu mënuloon mënu woon na dem si ñoom côtoyé leen waxtaan ak ñoom. waaw mais xam nga nag nit ki moom kaay ma dafa neexul du dëgg. nit nit ki déedéet nit ki mooy xool ne ki am na qualité yu nekk ci moom am na talent bu ne si moom yow nga xëcc ko en tant que grand frère teg ko ci yoon mais yàlla dogal na nag loolu yëpp amul bon dama ne am naa déception mais regretté wuñ dara nag parce que nit ki nga xam ne eh, lu ba waaw xam naa daal làmb daal am nañ ci wàll def nañ ci liñ ci war a def liñ ci war liñ ci waroon a def donte nag fiñ séntu woon vraiment yegguñu foofu fi nga bi yeggoo fa daal. waaw parce que mënoon naa toog a des arènes te sama bàyyi làmb sax perte làmb la. sa bàyyi làmb perte moo la. perte la ma làmb la maanaam sama sama échec ci làmb. perte ma culture bala ci boppam. culture lamb ci boppam. kooku échec échec la ci niveau boobu. waaw parce que tey. Mhm. man séntu woon naa tey. parce que xam nga wax baaxul nag. waaye aussi côté côté caractère parce que waaw dafay baax nga wax parce que li tax mooy nit ñi dañoo yomba fàtte. làmb ñun peut-être yàlla ay ndaw lañ mais ñun peut-être ñun ay ndaw lañ mais avant ñu ñëw ci làmb surtout làmb làmb làmb bëre dóor euh, culture séeréer ñan ñoo fi nekkoon ñoom ma nuñ doon tëggee yaa ngi yaa ngi dégg waaw mais ñun ñun ñoo ñëw nag par la grâce de Dieu ñu imposé may dem imposé Babou Ngom ñooñu yëpp ñu daaw ñoon ñëw bëre bëre dóor ñooñu yëpp man maa leen andi imposé leen waaw ak chorégraphie boo xam ne nag culture séeréer puis le dire léegi nit ñi bëgg ko ñëw adhéré ba olof kii sax ñeneen promoteur bu ñuy tëgg sax dañuy engagé may engagé baabu waaw loolu nag duñ ko wax duñ ko wax suffisamment mais loolu man loolu man la doo man la sax loolu nit nit nit warul wax loolu waa loolu <laughs> ma ma ma tamit way boobu rëyoon na way bi la may ndeb wayoon ah baabu ngum di ko tëgg ngay tourné nii di def benn genre tourné waaw di def benn genre tourné rond noonu waaw dëgg la boobu lu lay wax noonu boobu lan la la doon wax ci séeréer. Paul Maurice Paul Maurice Paul Maurice yow la géew gi di xaar euh, Lamle mooy ndënd bu mag bi di tëgg ci biir biir dëkk ba sama dëkk sama village bi Bikol waaw loolu la woy bi tëgg tekki woy boobu nag je me rappelle mhm. ba ma koy ba bu ko may def di foon fente boobu fekk na man may def euh, cinquième mhm. waaw cinquième laa doon def ñu vacances euh, ñu am vacances Noël ñu ma ñëw Fatick fii. Lambu Njaanjaay ah Lambu Lambu Lambu Escale non Lambu Njaanjaay wala Escale laa euh, am ñu dem dem dem di bëri di bëri ba demi finale ci poids léger am ku ma dajal mu tudd Mam Mignane. Mam Mignane waaw maa daan nag ba toog ci kawam mais at bi dafa yëkkati ma sifflewaat combat bi ah. waaw boobu xam nga nekk gu ma rek la ñuy wax quoi boobu maa ngi jàng comprendre nga ñu bëriwaat nag mu daan ma. gis ma daane ci la may jël micro bi. ne Paul Maurice oh, parce que tellement que jël boobu dafa naqari am na ñu mu naqari woon parce que man maa daanoon <laughs> waaw léegi nag bi waaw bi mu ko wooyee ñu koma ñu tuus. ñu ko may ndab waaye nu mu wax. Paul Maurice yow oh, ngal la lam la ji naa ndeer bi kon <laughs> waaw non jour boobu tax waxuloon loolu jour boobu dafa ne. Paul Maurice wo mbeske ndoya yow la yow yow la yow la yow la yow la mbëri di roy lam la ji naa ndeer bi jour boobu loolu la waxoon <laughs> après ñu ñëw jóg tous affaire yi neex waaw boobu nag fa la jógee. topp la ba Dakar. waaw topp nag voilà boobu nag boobu yëpp woy boobu nag laa carrière maanaam ba may jóg la woy bi jóg woy bi aussi noonu la jógee ba nii. te buñ la ko mosaan di tëggal ba amateur yëpp toog nga puudaroo puudar bi sol affaire boobu xaw ma loolu lu mu doon ah rouge bi am pettaaw yi. loolu. waaw waaw waaw loolu de xam nga ñett moom da nga inspiration comme li ma la wax suñu suñu suñu suñu ñàkk a réussir ci làmb perte làmb la parce que yooyu yëpp.

indi ay ay affaire indi indi indi indi sax ñu ko ci millions 1 milliard dañ ko jaay bitim Canal Plus muy match di mais pour cela jaay muscle parce que muscle su ñoo ñu du donc li nga li leen culture pure et dure bo xamanteni tay may def taxaw di tous gis aussi vraiment maanaam comme dans les années 2008 bi nga ko waxee noonu 2008 jàpp 2005 gis na boobu làmb dafa nekk au top donc mënoon nañ jaay culture boobu tey ba vraiment Canal Plus di di di jënd tey suñu suñu combat wala yeneen chaîne télé wala yeneen pays ñu exporté ko ba nga xam ne bu mën day mbër day mën a am combat sax am am un milliard wala un wala wala am cinq cent mille man loolu moo loolu moo nekkoon suma yéene ci làmb mais yàlla dogal non la quoi. <laughs> nga bàyyi làmb ci loo nekk. Ah, bon man na xam nga naka jëkk moom euh, ñun dañoo nekk dans dans bi ñuy bëri aussi ubbi nañ ci ñu xel ci après boobu aussi ñu def suñu entreprise entreprise boo xamante ne entreprise d'élevage la waaw ci loolu lañ nekkoon sax avant bon naa ne avant làmb sax wala sinon ci biir làmb ji depuis lañ ci nekk ba léegi nii waaw ñun daal ñu ngi suñu élevage ñu ngi ci suñu waaw noonu la quoi à part maa ngi ci docteur le président docteur Cheikh Kanté waaw. kon Paul mu ci liggéeyam. waaw Paul mu ngi ci liggéeyam daal mais mu ngi sant yàlla. waaw mu ngi sant yàlla aussi euh, président ñu benn yoon.